salaamaaleykum mbokku internet Iba Kane TV maa ñëwaat ak yéen di leen amal waxtaan ci combat bi nga xam ne dimanche lay am muy combat de tous les dangers nag ci diggante Sokh ak Franc combat de tous les dangers combat la boo xam ne nag euh, coow li bari na trop boo demee Pikine coow li bari na waa Pikine nee nañu Sokh du taxaw ak Franc boo demee Parcelles Franc du taxaw ak Sokh xam nga waa 200 pour cent jóg.

ah mën na dugg si histoire làmb pourquoi mu mën a dugg si histoire làmb parce que mënul bëre mbër moo xam ne mosul daanu ki nga xam ne mooy franc ñu koy woowee njaago bi ñu koy woowee le démolisseur am bëre dix combats dix victoires si neuf ans neuf ans seulement juróom-ñeenti at mu am si dix combats dix victoires daaj euh, premier combat mu ngi daan ki nga xam ne mooy géej mbambulaan le 29 décembre 2013 le 29 décembre 2013 la njëkk a takk ngembam en avec frappe daan ki nga xam ne mooy géej mbambulaan après mu jël Diarra 2 dans le 1er mars 2015 jël Rums dans ko le 31 euh, juillet 2015 jël Serigne Ndiaye 2 dans le 13 mai 2016 jël Thiatou dans le 25 décembre 2016 jël Ndiaka Doole daan ko le 5 avril 2017 jël Mbaye 2 dans le 23 juin 2018 jël Nguer dans ko le 27 juillet 2019 jëlaat Bébé Saloum daan le 8 mars 2020 mujjee dans Tyson 2 le 19 juin 2021 donc li mooy palmarès ki nga xam ne mooy Franc Franc li mooy palmarèsam 10 combats 10 victoires mu war a jëm 11e combat am contre Sokh ak lu qui xew ak lu mënta Franc mooy favori si combat bi Franc mooy favori parce que ku étaler mbër yi nga daan leen nga daan Mbaye 2 daan Guerre, daan Bébé Saloum daan Tyson 2 nek ah, nekk euh, lutte avec 100 francs nga am fa jaloon ñu dul jeex donc kooku yaay favori parce que moo ëpp compétition mais nekk favori taxul na yooyu yaay daan kii daan moom yàlla rek a xam soq tamit am na ay chance pour daan franc parce que franc quoi qu'on dise am na ay failles mbër bu complet amul si làmb ji làmb ji amul mbër bu complet mbër bu complet amul à 100 pour cent toujours di nga am ay failles peut-être nag estafu euh, euh, soq jëm nañu xam ñan mooy faayu franc pour jëm ko exploiter mais quoi qu'on puisse dire lépp luñ ko mën na wax. mooy Franc mooy favori parce que moo def 10 combats 10 victoires musul daanu musul dégg mu ñëw te tandis que Sokh mu ngi si 4 defet mu ngi si 4 defet défaite bu mujj je pense daamu doomu daangu moo ko mujj daan donc combat la boo xam ne daal combat bu bu bu alléchant la war a nekk bu bu neex a neex a neex la war a nekk yaakaar naa bu arbitre bi sifflé si li ma jàngat daal gis naa ne Franc day dem jëli ki nga xam ne moom mooy moom mooy euh, Sokh parce que ak li wax. dina la daan si ay avant si si trente secondes si combat donc gis naa ne moom combat bi moo koy def parce que Franc xeexkat la bërikat la jàppantekat la leader la boo xam ne vraiment dafa bëgg euh, ku mun xeex la ku ku yaakaar ne Franc mënul xeex yaa ngi nax sa bopp Franc c'est un bagarreur yaa mbër mu muy bagarre la donc combat la boo xam ne daal ah, am nañ si yaakaar am nañ si yaakaar ñi ñaan nag ni ñëpp ñëw dans le plus grand fair play Je dis ko que le meilleur gagne que le gagne ndam bi day rek wala nous dans nous le Sénégal qui gagne donc va-t-il arrêter Franc Franc va-t-il poursuivre son invisibilité? C'est une grande question si bëgg xam dara dimanche 19 juin solo ba rafet ba nice def sa combat Franc musa ku yaakaar day yomb yàlla ndax sa bopp ku yaakaar ne combat bi day gaaw ah man daal gisuma combat bu gaaw a gaaw a gaaw xam naa ne daal dina am tuuti round d'observation bien que Franc nee moom day jëli sox mais gis naa ne dina am round d'observation parce que Franc erreur euh, bu naree sax-saxee ki nga xam ne sox ak suufu euh, suufu arène national boobu nga xam ne dafa diis trop waaw ah, lu ne mun na faa xew mais y a un round d'observation war na a am eh, si pour si combat boobu si diggante Franc donc rendez-vous le 19 juin si diggante Sokh ak Franc ñuy laaj ndax Sokh mën na arrêter Franc ñuy laaj ndax Franc day poursuivre son invité dagg 11e victoire pour nga euh, euh, défier les yi nga xam ne au sommet de la lutte sénégalaise donc rendez-vous le 19 juin 2022 pour ca arène nationale sama gars